di lay ziar di la ñaanal jàmm te di ko sàkku si yow comme ni ma ko waxee rek ñëpp. waaw onze billahi mina shaytaan bismillahi rahmaani rahim. ginnaaw bi yàlla julli ci yonent bi. waaw mhm. ñaanal ñi nga xam ne nag dañoo wàññeeku ci. li fi amoon bëri ki amoon mhm. ñaanal suñu borom yërëm leen taxaw leen ci àjjana firdaws ñi nga xam ne dañ ci am ay blessure aussi mhm. suñu borom leen ci loolu hôpital yi nuyu ñi nga xam ne ñoom laa àndal ku ci mel Moustapha Gueye mm-hmm. Papa Gueye ah Fiso mm-hmm. Disco mm-hmm. di nuyu sama gaay yëpp di nuyu ñi nga xam ne nag ñoo fi toog muy waa bi maa ngi leen di ziar ku nekk sa tur sant di nuyu sama ménagère Basirou Babou père Moussa Magane maa ngi koy nuyu am na solo ñu jox maama mu nuyoo maama yegg si jege si nii ñëwal maama maama maa ngi lay bëgg yow di la ziar di la ñaanal jàmm waaw auzu billah bismillah inna wali yàlla jërëjëf borom maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonenteem bu tedd bi di gërëm sumay ñaari waajur di sant suma sëriñ sëriñ Abdourahmane Mbacke yàlla na yàlla yokki leeram te taasu su barkeem di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp di nuyu ñu fi toog di nuyu suma papa Mass Mbargane di jaale nag àdduna ak mënu làmb yëpp suma papa Père Aline Diop dafa wàññeeku. dëgg ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom faare ko àjjana. xool caméra yi comprendre nga. Mm-hmm. yi jot am fii. Mm-hmm. ci jot a ñàkk seen bakkan neexul mm-hmm. kenn. caméra yi waaw. métti na lu naqari si xol la. mais ñu ngi ñaanu yàlla aussi tamit ñi ci dem suñu borom xaaral leen àjjana. ñi fi des suñu borom yéexee leen ñi nga xam dañoo am gaañu gaañu. suñu borom may leen kàttan ak tànn. ba ñu mën a seen liggéey. ndax encore une fois aussi tamit damay ñaan dara rek. muy réew mi ñu nekk. réewu Sénégal te réewu moom moom mooy la la teraanga mm-hmm. comprendre mm-hmm. te tey ji soxla mu fi leen lu dul jàmm mm-hmm. ñi ñaa ngi dee te mënoo ci dara comprendre nga dëkk bi métti na chaque jour ñu ngi def face à face ci làmb ji rek la ñuy wax man loolu tey andiwuma dëgg la kii moom benn jour la rek après day jeex day jeex dëgg la xool caméra mais na nit ñi taxawaat askan bi jàppale askan bi état bi jàppale làmb ñi ñee ngi dee jërëjëf merci beaucoup. loolu waxi xol la tàccu leen ko. loolu mu wax am na solo te defe naa ne les war a bàyyi xel ndax nag état bu yoree am réew. defe naa ne la ma waxoon sànq rek jaaykatu caaf ba sax waru koo xeeb rawatina nag lu tol ni làmb nga xam ne ña ca nekk di ay mbër tey defe naa ne ay maanaam lépp lu mu mën a doon nga nit di ko am mbër yor na ko ka yor mbër yor na ko ak ña leen kon defe naa mbër yi war nañ leen respecte respecté tamit ña leen di encadré président écrit ya ak école de lutte ya entraîneur ya ak ménager ya parce que ñoom ñoo teg mbër yi ci yoon tàggat leen ba tax tey mbër yi yegg ci niveau ba ñu yegg defe naa tey Balla Gaye di dugg ci jataay ñu di ko daw ndax doyadi te ci làmb la jóge Modou Lo roi des noonu Eumeu seen noonu Bombardier noonu Gris doo noonu Lac de ba ca tafaati ñoom mbër yëpp ba ci ñi ma taxawal la ko waral mooy personnalité bu ñu am ak fulla bu ñu am xeex seen carrière parce que nag ñoo xëy am li ñu am déedéet dañ koo ñàkkante kon defe naa état na gën a bàyyi xel waa làmb boobu ba tey nag ñu ngi leen koy wax ba bëri ki démb wax ju rëy ji fi am am fi ki ko wax wax wax joo xam ne penalty du ko gën a rëy muy lu doy waar ndax nag loolu xam naa ne yéeme na Garga 2 boo déggee wax ji Mama Lamine wax te di sa adversaire looy wax xoolal caméra yi. nga Mama Lamine li mu wax. dama ci ñëw parce que na micro yi ñege. pile de six mille licenciés waaw. tey état bu jàppale promoteur bi jeunesse bi la jàppale. parce que mhm. comme mënul créer emploi. waaw promoteur yi di créer emploi daf leen war a jàppale. Mhm. dooleel leen ba tey ji yëpp mën a bëre. Mhm. chômage bi wàññeeku. waaw loolu la wax. mais adversaire bi léegi ginnaaw bi ngeen waxee loolu adversaire bi noo ko gisee parce que adversaire de taille la de. waaw lam moom képp ko xam garga xam ne musta jël combat la nekk ci ay preuve man aussi mu ñëw pour preuve yooyu mu nekk mu arrêté ko. Mhm. incha allah rabbi. arrêté Mama Lamine. yàlla. noo ko bëgg a arrêté. daan ko ñibbi rek. parcelle incha allah Garga eh, nga bëgg a ci kattanu yàlla. arrêté ni nii nii xool caméra yi ñu gaa lay gis de. li ma la wax kay xam nga moom ban. ana na jege waaw Valdo de yaa ko daan. ana doomu daan yaa daan de. na. te noonu nga ko fas yéenee def. li daan ñoom ñëpp fii la nekkoon. dynamique. de victoire. nga stoppé leen. ci di dóor gars yi ñuy daanu. kon yow daal ku jaar APS moom vitesse lu mu bëri bëri bu daj ak yow dëpp. incha allahu rabbi. te moom mii da ko fas yéene dëpp. loolu la ñuy ñaan yàlla. loolu doy na waar maama yaa ngi doon wax léegi wax ju am solo waaye sa waay daa mel ni yàq na man parce que dëpp de ndax ñi mu dëpp a bëri. loolu garaawul loolu ay bagage boppam la daan ak daan. waaw yàllaa ko yor. comprendre man sama diggante moom sàkku ma ci leen lu yàlla may ma ndam moom man mënuma. bu bis baa na ma ko wan bu ma jekkoo na ma rey bu ma du ma ko may. Ah. amul lu ma koy sàkku lu ma koy ñaan lu ma koy yërëmtalu ci moom li ma war jël si moom. Ah. barke alxuraan jarul sax muy ñëw bi bu ne prix maa ngi ci kaw. yombalal ko ko ngir mu def ma li ma bëgg a def. Ah. Mhm. bu suuf léegi wàccee yow ne ko nga ne ko maa ngi. Babacar lii ñuy wax ni yëpp ay répétition la. waaw waxoon ñu ngi wax wax ji dafa doy. Mhm. kii li ma naral na ko denc li ma ko naral ma denc ko baar bi génn suñu diggante lu mu mën ci mën na ko def combat yi ma njëkk yi ma am yëpp yëpp laa la wax j'ai fait onze bii moom ma ci gën a ñor. parce que combat la boo xamante tey fu ma génn moom da koy dégg yaa ko mën yaa ko ëpp doole. loolu lañ koy wax moom. waaw. Ah. ba booba. daa gëm loolu. ko yor. est-ce que moo la mën mu ëpp doole. waaw kii daa mën kenn. góoru góoru ëmb ëmb paak tako ma njaay xaw ma. waaw mënul kenn. déedéet waay déedéet. mënul ci yow mënul kenn mënul ci man dara. billaahi. déedéet waay dara ko ci man. dina xam ne mënu ci man dara. war na Serigne Touba. ma maama maama lu may peur. mais ni ma fi ñëwee neexuma xol laa fi ñëwee wallaahi. parce que liñ jot a jógee nii xam nga. dafa métti dafa ci xol quoi. man gëwuma ñuy taxaw naan état. bëgg na làmb ak bëggul làmb mhm. loolu lu mu wane la faalewul làmb gars yi nañ bàyyi naxa sa bi te wax gars yi li ñu war a def nañ ko def mhm. ñun ay ndaw lañ nekk ci réew mi gaayen amuñu leen lu ñuy représenté mais gëm nañ suñu dëkk fii lañ dëkk on est fier sénégalaise. mais tey jii làmb français du ko defar comme ni ko kii waxee. Uh-huh. Angleterre du ko defar keneen du ko defar ñun ñoo koy defar te culture la fii la nekk. waaw de des années ñu toog bëriwuñ amuñu demuñu fenn xëyuñu gontuwuñu xëy on benn jour rek benn samba booy jóge fee teg ay microbe mi mbëri lii mbëri laa mbëri laa dañu waxante dëgg quoi. nañ ñu jàppale te bàyyi xas ñuy xas ay doomu gor lañ wallaahi ay doomu gor lañ suñu yaay dañ koy bàyyi kër ga ñëw fii di dem fu ne gaañ di lijjanti Macky Sall jàppalewul kenn keneen ku fi ñëw tamit boppam la fi nekkal dañ jàppale nit ñi. politiciens yi. waaw ñoom jàppale leen mi am li ñu am. waaw ñu jàppale ñu làmb lañ am. passe caméra bu ñu ko xeebal. Mhm. wasalaam. léegi looy tàggoo. di sant ñi ma fi àndal. Mhm. muy Serif sama seex. Caatu Fora. Mhm. ak Fallou Fallou Koundoul sama xarit la. maa koy sant bu baax di ko gërëm. di gërëm Daxé. comprendre di gërëm taali couture élément su Ibra ñoom ñëpp samay xarit lañ mhm. di gërëm Sita taali ba Bamba ñëwul mu ngi këram waaw di gërëm waa jàmm gën waa Sikaab Mbaaw mhm. waa Fora ñëpp maa ngi sant gërëm sama benn xarit boo xam ne muy Italie muy Kanté mhm. maa sant bu baax di ko gërëm du yàggul dara la ma yónnee xaalis parce que xam na ni affaire yi daa métti man sama yaay papa tabaxul kër ah. sama yaay amul kër sama ma amul kër ñëpp dañuy luwee oh. mais bu weer bi dee gaañ day métti si yow booy xoolee ni sa bopp quoi métti na trop li ñu teg ñun tey yeewuñ ko barki maam Serafal maa ngi jégaluwaat nag bu wér jaajëf. daw yàlla ñëpp la fi nekkal. waaw te yéen nit mu fanaan biti du ko doo ko tax fanaan biti yàlla rek ka fi ne. Garga 2 looy tàggoo. waaw ginnaaw na micro yi jege. li nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ku ci mel ni père Ba. Mhm. xool fële caméra yi. di nuyu sama gars yi nekk Italie yëpp nag. gis naa taxawaay fan yi dañoo def association ay doomu ndaan la. Mhm. pour jàppale gargat caméra yi waaw. pour jàppale gargat ci combat bi mu jëm. Mhm. dajale xaalis bu bari yónnee ma ko. te duñ ci yem. waa Equivox TV ñu ngi leen di ñaanal. sponsor yi ñëw jàppale leen. boobu bu ñëwaat fii di taxaw ñu sol ay blouson comme ñëpp. bien sûr parce que tamit làmb ku lépp ku lay jàppale di la fay. Mm-hmm. kooku da nga koy ñaanal mu jëm kanam. dëgg la comprendre nga. Mm-hmm. di nuyu waa parcelle ga ma jógee. ba 26 maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. dëgg la di nuyu waa Cité Fadia. Mm-hmm. di nuyu sama waa dëkk waa Kajoor. Ndanda Fall Kébé maire Ngaye Mexe comprendre nga maa ngi leen sant ñoom ñëpp. sant samay mbokk samay nijaay. Mm-hmm. ci mel sama nijaay Gora Diaw nijaay Talla Seck. Mm-hmm. ak njabootam ñoom ñëpp maa ngi leen di nuy sama nijaay Thierno Seck. Mm-hmm. gis naa seen taxawaay ci man. di nuy sama waa kër nag. sama bàjjen maam say Seck maa ngi koy nuyu Birame Thiam. di sama gars yi may àndal. waaye inte siis. combat bi daf leen jaral. na nga xam ni mbër mi tëddul di nelaw. lu leen jaral rek jaral na ma lu ko raw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di ñaan yàlla defal ñu ndam Sénégal tam yàlla na fi jàmm yàgg.